min namasat sayatin wa auzu bika rabbi an yahduruni yaa faadilan fadalowol xalaaxu yaa man bihi faaraxani imlaaxu jërëjëfe sëñ Touba iskay borom Touba sëriñ Touba moroom man tewul bokk jullit yi bokki taalibe yi téléspectateurs yi ak téléspectatrices yu Touba TV seen mbokku taalibe maam Mor Mbaye yoonu géej gi kennal sëriñ bi moo ngi leen di nuyu di sàkku ci ñépp ak ñaan noo ngi ñaanal ñëpp di siyaar ñépp rawatina umma islam bi jël siyaar bi teg ko ci loxol Cheikh Mouhamadou Mountakha di ñaan sunu boroom yàggal ko lool ba lim li yéene lislaam bi war koo liggéeyal maamam Cheikhul Khadim and ko njabootuk seigne Touba gep yalla nako agale tan fekk lepp ci barke seigne Touba di massaw baakha a baax at mi ñi nga xamni suñu borom dogal na ñu am ñu ci laqku ñepp rek yalla na leen suñu borom tabal aljana mbolem fu julit ne ci barkeb seigne Touba Cheikhul Khadim leen siar ci weer wi nga xamni moy mooy at mi di ñaan suñu borom. dolli ñu ci musal ci at mu bes mi nuy dugg dimbali nu ba euh, lu rëcc rëcc bu nu ci at mi wessu yalla ñu ko suñu borom jéggal te at mi di ñew ñu bañ ko ci togn bañ ko ci moy ndax doomu adama sàggan na waaye itam sunu borom bari na yërmande noo ngi siyaar baax Cheikh Mouhamadou muntaka bu baaxa baax di ko ndokkel ci julliti appréciation yi nga xamné am nañ ko ci mom te it ñuy di wax ci youtube bi ñu nekk ci réseaux sociaux yi kenn ku ne da ngay gis ku ne wax dëgg yàlla nangam laa waaye sëñ muntaxaa daal euh, na ko fi sunu borom bàyyi am ku ne du ma murit waaye nangam ak nangam loolu yépp noo ko ci siyaar bu baax a baax euh, di sant bu baax a euh, di ziar sama famille bu baax te fan yi tiis dal ci sunu kaw dal ci kaw yoonu murit ak Sénégal itam muy jàmbaar joo xam léppam Serigne Touba la woon waaye léppam Daaru Salaam la woon muy Mamadou Mamoun sàmb di mag ci man ñu bokk ndey bokk lépp gis nga ko noonu sunu borom dogal mu làqu bëggoon lu baax lool ñeme njaboot taxawu fameem moom la sunu borom dogal mu dem ñibbi Daaru Salaam dem àjjana ca kanamu maamam ji mba way juróomu tedd ba alaaji kaani Sàmba ko meññ euh, waaye ay rakkam ak njaboot gi gépp noo leen koy jaal muy tiis woo xam ne metti na trop ci ñun di tax ma exposé ko damaa bëgg kuy seetaan rek defal nu fukki lixlaas ak benn ginnaaw faatiha yéen a yool bi Mamoun Samb mi nga xam ne moo nekkoon directeur Socabek nekkoon xarit ci jëwrin alaaji mbàkki yu saa yu ma ko nuyoo mu ne ma ana jëwrin yaa ma fa nekkal euh, di kenn ci famille bi aussi vraiment mu doon loo xam ne tiis na metti na mais tamit ta ñàkk ndax fa mu nekk ñun la fay xaar kon yàlla na rafet moom nag rafetal na adina rafetal na ko kum bokkal may na la kër kum bokkal rek may na la kër waaw may yóbbu la màkka jàppale la di taxaw ñëpp di lijjanti famille bi moom mi moo fi jógee démb bi ma sëñ Abdou Mbaye Cheikh euh, sëñ Abdou Bali mom sëñ Abdou gaynde Fatma bi ñuy waxtaan mu naan bi ko naan ku jàpp ku taxawoon famille bi dana ma Sénégal nga naan famille bi Mame Mor yow kooku xanaa maak moom dañ daan waxtaan waxtaanu biir ak bu biti loolu la ma wax kon yàlla na ko suñu borom gisalee Serigne Touba fa mu nekk mu bañ fa am benn benn benn benn benn benn benn jafe fa mu ne nag xel dal na fa ndax Daaru Salaam lañ ko denc démb bi trois heures du matin di jot ci lañ agsi daal di koy denc waaye muy tiis soo xam ne dal na ci suñu kaw maa ngi ñaan daal ñiy seetaan ñëpp yàlla Euh, ñu defal nu ay dog ay xasida ndax murit la woon bu gëmoon sëñ Tuubaa te di ko liggéeyal lu xew rek mu dem ci te bañ a feeñ démb rek ma ci jokk sa jëwriñ mbàkk yu dane ma man li ma jaaxal mooy daawut ñëw ci lenn kenn du ko gis sax ma ne ko noonu la mel waaw ku discret la woon ku ku ku effacé wu la woon te nag di jëf kon yàlla na ko suñu borom gisalee turandoowu tedd wa sëñ Modou Mamoun turandoom wa nag la sëñ Tuubaa toog ba yàgg rek dal ne nañ ma war gaal ku amul bàkkaar nag ma war gaal sëñ bu nee nañ ma defal nangam ñëpp ay jóg mu ne ku amut bàkkaar na ko warga dal di fatu toog ba yàgg mu soññee warga wi noppi na ñu ne ko mbàkke day ku ne bëggoon na ko am yéene waaye am ku amut bàkkaar day ji nga ci teg moo jaaxal fere yi mu ne ana Moodu Maamun sëñ Moodu Maamun lay wax mu ne ko maa ngi mu ne ko wargaal amoo bàkkaar ak képp koo xamante ne ajuñ la ci yow kon daru salam loolu mom ay ay buuñaa la yoo rek yalla nuko may moy kun fa denc walaw kana kafiran dukhul jannati bi ila khair hisab bu fa dencé donte yeufar nga àjjanaay sa keur kon nu gisante ak seigne mudu mamun fami bi tamit yalla may len xolum muñ naqari muñ nak mamun sambu naqari muñ naqari muñ parce que ci nitiyem baxam hmm, xajo ñep waye tamit euh, mënu fi wona nek continuer ndax ñun ñi ñëpp kenn du fi nekk continuer kon na rafet na rafet euh, mu mel ni tey dama bëgg waxtaane yoonu murit tey waxtaane ak njullit waxtaane ak mbaax waxtaane ku nite waaye waxtaane ku jeex tàkk ci sëñ tuba kooku kan la sëriñ moodu bu sa jeng sëriñ moustapha falilu ñépp gën koo xam ci sëñ moodu bu sa jeng kooku tey ci laa bëgg dugg bëgg murit yi tey xam naa ni buñ ko waxtaanee mbooleem njabootu sëñ Fàllu gépp waxuma la ñi mu meññ moom di ko dale sëriñ jiiri noo ngi koy siyaar di siyaar sëñ aboo Baraka sëriñam bu baax bii fi ne jëlale naa sëñ jiili ak i rakkam ñoom sëñ maak ñooñu ñëpp waaye njabootu sëñ Fàllu gi nga xamante ne bi fi sëñ Fàllu di jóge daanaka euh, ay ndaw lan ñenn ñi xamuñu ko ñoom sëñ Moodu lan jàppe bàyyi waaw sëñ Modou lañ jàppe bàyyi ak ñu man ñi itam ñoom sëñ Modou lañ def seen lépp ndax sëñ Abdou Karim Mbàkke moom sëñ Fall da ngay toog ci wetam muy wax ci sëñ Modou ba da nga naan daal kii daal euh, waroon na fee ne daal waaye nag dara jugu fi murit nañ xam loolu kon biographie sëriñ Modou Bousso jeng, laa bëgg a ànd ak sëñ daam mu indil nu ko tey sëñ nekk ci réalisation bi ak euh, sëñ daam nekkal ñu fa sëñ daam biographie sëriñ Modou Bousso Dieng Cheikh Moustapha Falilou nit ñi xam ci moom dara incha allah. bil Moustapha bil Moustapha bil Moustapha. Serigne Mouhamadou Moustapha Falilou Mbacké ñu gën koo xam ci Serigne Modou Bousso Dieng. moom mi lee jeexal dundam gépp li ko dale ci 1921 ba ci atum 2000 ci def lu baax waaye itam def lu baax waaye itam jeexal dundam gépp ci sunna moom mi lee way juróom wu góor di sëriñ Fallou Mbacke nekkoon ñaareelu xalif sëriñ Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul way juróom wu jigéen di soxna bu sa Dieng moom soxna sa Dieng moom li sax way juróom di Mayacine Dieng ñu bokk ci askanu Dieng di askan wu ñu xam jaamu yàlla waaye itam askan wu sell di dund ci siraatul mustaqim histoire di fàttali ne moom Serigne Modou Bousso Dieng mbilee maamam jama moo ko dalal alquran ginnaaw ba ci la ñu ko daal di yóbbu ci Serigne Mor Sànqe moom Serigne Mor sax moom moo ko daal di eggaleel am njàngam ba mu daal di wàcc alquran ci biir njàngam itam ñu ngi fàttali ne Serigne Fallou Mbacke di way juróom bu góor jàngal na ko alquran ginnaaw bi ci lañ ko daal di dénk ki nga xam ne moo di turandoom wa di mag ki Serigne Fallou Mbacke di Serigne Mouhamadou Moustapha Mbacke ci lu jëm ci wàllu diplomatam moom Serigne Modou Bousso Dieng nekkoon te ku ci ràññeeku ci biir réew mi ak ci bitim réew loolu lee ñu daal di jàpp ne turandoom wa di Serigne Modou Moustapha Mbacké jàngal na ko ci lu bëri ñu ngi fàttaliku ci atum 1984 ak ci atum 1988 ci tukki boo xamante ni amaloon na ko ca Omar Bongo waaye itam ca Houphouët-Boigny ci réewum Côte d'Ivoire ak ci réewum Gabon waaye itam visite bi nga xam ne nii amaloon na ko ci Arabie Saoudi bi nga xam ne nii buur ba moom moo ko invité woon ci atum 1990 te mu defoon fa fanweeri fan ak juróom-ñaar diirub xilaaf ak sëriñ Abdul Ahad Mbacke moom sëriñ Mouhamadou Moustapha Falilou mi gàlloo na ci ay liggéey yu ama am solo waaye itam ab digganteem bu taxoon na ak sëriñ Abdul Xaadir mbàkke mi nga xam ne nii kenn la woon ci waa kër sëriñ Touba Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim itam ñu nemmeeku woon wegeel waaye itam respect bu mat sëkk ci digganteem ak Serigne Saliou Mbacke mi nga xam ne nii wóolu woon na ko loolu ndax tegu gi nga xam ne tegu na ko ci siraatal mustaqim waaye itam ci digle Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul moom Serigne Mouhamadou Moustapha Mbacke Falilou digganteem ak Serigne Mourtada Mbacké itam kenn du ko laam-laamee ba ci année cinquante yi sax nga xam ne ni jamono la woon ju xaw a jafe ci lu jëm ci wàllum koom ak yu ni mel waaye itam ci lu jëm ci wàllum waruwaay moom Serigne Modou Bousso Dieng ci la jël waruwaay woo xam ne ni valeur la toll ci ay million yu bëri daal di koy jébbal baayam ja di Serigne daa Mbacké diggante yu tax yooyu tam ak relation yu am solo yooyu lañ ko mën a waxal ak rakkam ja di sëriñ Mouhamadou Baara Mbacke falilu digganteem ak sëriñ Baara ñu nekkoon kenn nit nekkoon tamit jiboo loolu te déggoo ba tax bi nga xam ne ni ci la génn àdduna moom sëriñ Mouhamadou Moustapha Falilou moom sëriñ Baara moom moo joxe ndigal nañu ko denc ci wetu way juróom moo di sëriñ Fallou Mbacke loolu le firnde la dul dañ ci diggante sëriñ Baara Mbacke ak sëriñ Modou Bousso ci ni nga xam ne lañu déggoo woon ay jamonoom firndeeloon na ko lool ci ab taxawaayam ci lu jëm ci wàllum réalisation ci lu jëm itam ci tabax waaye itam defar lépp lu jëm ci loo xam ni day aar njaboot gi waaye itam day di indil ay njariñ di leen dàqal bépp loraange ci dëkk yi nga xam ne itam ñoom ñoo wër Touba waaye dëkk yi nga xam ne sanc na leen waaye biir dëkk bu sell bi ci Touba loolu leen mën nañ ci tuddu dëkk bi nga xam moo di Sam Yabal Xayra ak Touba Aliya ci yoon liggéey jaamu philosophie boobu la sëriñ Mouhamadou Moustapha Mbacke Fallilou di mës di màggal waaye itam di mës di yare ak njabootam ginnaaw loolu ci ay réalisation mën nañ caa tudd tabax gi nga xam ne tabax na ko ay poste de santé yu bëree bari yoo xam ne nii askan wu bari ñoom ñoo cay faju ba tey ji ñuy wax ak yéen ci lu jëm ci ay daara itam tabax na ci lu bari waaye itam defaraat ci yu bari teg ko ci aw yoon ba ay ndaw ñu bari di fa jànge waaye itam di fa mottulee seen ab yar jërëjëf yal na nu yàlla taaf ci barkeem sëñ daam jërëjëf euh, muy jëmm joo xam ne dégg nga biographie bi wax nanu kan mooy Cheikh Moustapha Falilou mooy que Serigne Fallou meññ ba noppi dégg ngeen at mi mu ganee jamono waaye kan la ko jox wuy juróom wa Cheikh Moustapha Mbacké mi nga xamante ne euh, moom moo njëkk a wuutu sëñ Touba moom sëñ Modou daan na wax ne. Euh, ku ni do do do fanan suba rek say mbok jaaxle loolu nak lima ko lima ko may nak la len bëgg wax seigne Fall daf ma jël yob mu seigne mourou sa jeng de yóbbu ma sëñ Moustapha Mbacke sama way jur ne ma bu la gërëmee na la na seigne sëñ Modou Moustapha ma ma liggéeyal ko bam bam ba ma nee na bima ma bi Fall ma teg ci ma laq ñaari ngërëm yoy ma laq motax ba. Euh, ku ku ma ne doo fanaan suba say mbokk jaaxle sëñ Modou doonoon na koo xam ne ci dimbilee yomb la am ci kaw suuf problème bu taxaw léegi moom day wan nit ñi ne leen sëñ Fàllu jógu fi kon moom sëñ Modou jógu fi itam am na ku ko mës ne ko Mbàkke nii ngay def sa euh, loo loo am joxe ko sa waa kër yi loo leen fii bàyyil mu leen mu ne leen naa leen fi bàyyil yàlla waaye boo seetloo gisoo kenn ku bokk ci seex Moustapha Falilu koy taxawaan kon lu mu amoon da koo jaay yàlla ba mu ko ca jiyee mu sax barke boobu moo rogalaat ci barke baarakali fi xarakaati wa sukkoot rabbi lazi xat xaadali kun fa yakun barke boobu moo rogalaat ci njabootam gii nga xamante ne kenn ku ci nekk eh, doo leen gis ñuy taxawaalu waaye doo leen gis ci ak doye di noo ngi leen di siyaar baax a baax sëñ mu sëñ Moustapha Falilou daa am benn bis sëñ fàllu ca daaru marnaan mu am gani naar nee na mu daal leen di ganale te war leen a yeewi te ñoo ñu bokk ci sërif yi gën a mag ndax bi mu ñëwee di nuyoo rek sëñ Fall ne ko kooku kana mu ne ko mën na Moustapha sa moom mu ne ko Moustapha mu ne ko Mbàkke mu ne ko nuyoowuma tey sëñ Fall ne ko nuyoowuma tey kon am na lu lu lu metti sëñ Fall ca muri tëgga moom sëñ Modou ak ñu tëgga mu ne tekk bañ a yëngu mu toog tuuti ba yàgg sunu waajo sëriñ Fallou daal ne ko Moustapha xam nga lu tax nuyowuma mu ne ko Mbàkke bu ñu sañoon xam ko mu ne ko sëñ Tuubaa bu doon am nawle ci kaw suuf sëñ Tuubaa mut nawle waaye dégg nga lim ko wax Seex Sidiya Baaba ca Murtani kat lay nawleel bu doon am nawle kon daal di ne ko nag Seex Sidiya doomam dafay ñëw te ma war koo yeewi téeméeri junni laa ko war a yeewee ki mu àndal ñi mu àndal war naa leen a jox ñaar fukki junni te dara amu fi looloo tax yow ma <laughs> sëñ Modou ne ko ndax mën naa fee dem tuubaa ñëwaat wax nañ ne sax sëñ Fall foofu dana ko ak ndakaaru sax bu fi xajee maam ñor na ma sëñ Modou dal di ñëw xamut sax fi mu jaar ndax soxla sëñ Fall bu xësee taxaw. sëñ Modou gisatut daldi ñëw dugg ci biir néegam dajj ko porforme génn téeméeri junneeg ñaar fukk dal def fii génn ñaar fukki junneeg juróom dal defaat ci beneen poos bi daldi di départ ñëwaat fekk sëñ Fallu mu ne ko dangaa ñëw mu ne ko ñëw naa kay Mbàkke mu ne ko ana nga na mu daldi génn téeméeri junni yi ak ñaar fukk ne ko li nga war a jox naar bi ak ñi nga war a yeewi mi ngi nii sëñ Fallou bég ñu foog ni sëñ Modou ca lay yem mu daldi di newaat daxaas poosam rocci génn ñaar fukki junne juróom dal ne ko lii noonu la ko jox àddiyee sëñ Tuubaa sëñ Fall dal ne ko kaay mu ñëw ca ca ca ca ca ca euh, sijaadaam bu rafet boobu nga xamante ne Eh, da ko da ko caa teg daal ne ko sama bët daa naroon a xonq suñ fàllu ko wax nga weexal ko tal waaye sa bët dootut xong mu ko yow te loo dogooti ma fekk la ci loolu taxoon sëñ Moodu nawet bii bëgg ñëw nit ñiy tiit ak a ñu naan aj na ndënd yi mu ne nawet bi dana teel te dana baax gerte day am jottalikat bi sax mës na ni sëñ Fallou ne suñ Moodu nee na nawet bi yàlla na baax mu ne ko waxuma lool day baax laa wax <laughs> Cheikh Moustapha Fallilou barke Serigne Touba wala mu toog ca jotaay ne ñëppay fekki déwén nit ñi di bëgg a nattable naan yàlla nañ fe mu ne dama ne ñëppay fekke déwén loolu mu Moustapha Fallilou yàlla mayoon na ko ci am na ko xam ne mës naa déglu mu ne fu ne dem na fa ñu refule ko nee muy wër sëñ sëñ Moodu mu ñëw ñu ne ma nga saam yebal nee na ma départ dem saam yebal ñu ne ma nga jëm Touba nee na ma koy wër nee na bi muy tollu kër sëñ Fallou ma ma ma daw di ko songu daa gis passeport bi rek daal ne ko demal Italie xaar ma fa waa ji nee na nattable wu ma bi ma ñëwee rek laa préparé ut sama visa xam ne man damay dem sëñ sëñ Modou Sa Dieng tey bu nu ko dee waxtaanee am na ñoo xamante ne ñoo la gën a xam ne nga ndax fekk na leen Italie xoolal Napoli bi mu tàngee Napoli Italie gépp bu italien yi ne sénégalais du fi fanaan sëñ Modou dal ne France lañ ko jëlee keroog mu daal ne fu fu mbedd mu gën a tàng rek nañ ma fa jaarale kookoy Cheikh Moustapha Falilou moom lañ wane nii sànq bëggoon sëñ Fallou lool jeexoon tàkk ci moom njabootug sëñ Tuubaa gi gis nga amut ci ñoom sago xoolal taawam bu tedd bii mu jël ko tuddi ko sëñ Abdou Khadir kon te ki ngay njëkk a am kam koy tuddee kooku kuy rëy ci yow la mu tuddi ko sëñ Abdou Khadir wax nañ ne sëñ Jiiri mii di xalifaam nangu naa ci kilifa gu baax mu ne daa màggul sëñ Abdou Xaadir goo xam ne sëñ Moodu daa romb bunt kër sëñ Abdou Xaadir ñuy baas mu mu ne màggal gi daa ñëw ñu ne waaye ñii di baas ñu ne ñu ne jiiri yi la mooy mooy ñu ñu tuddee sëñ Abdou Xaadir jiili jaañ ak jiili njaay ak jiili sekk ak jiili nàngam ñooñu di baas mu daal ñëw ne sëñ mu mu daal ñëw ne sañ jiili mi waaye demal ca baas ba sëñ Abdou Xaadir laa tuddee demal ca baas ba nga xam ni sëñ jiili ca ñay takk ak ñay baas ak di organiser moom ca la mujj bokk xoolal googu modeste xoolal googu mbaax bu ko ne woon demal ca kër sëñ Abdou Khadre ca màggal mu ne waaye dem demal ca baas ba la ko wax waaye booba lu ko sëñ fàllu na ko sëñ fàllu defoon rek la fa séenee def njabootam gi nuyu na sëriñ fàllu di ko ñaan ñaanloo ci oto jël caabi yi jox ko fekk sëñ mu sëñ sëñ Murtada ngi toog sëñ Fallou daal jël caabi ji rek daal di ko doo fi war oto doomi sëñ Touba toog noonu la jële caabi ji jox ko sëñ sëñ sëñ Cheikh Mourtada nga xam ne noonu la toll ci oto bi waaye mu neex ko waaye yaakaar naa ni day ku gis ak njabootam xam ne joxoon na sëriñ doomi sëñ Touba loolu nag dañuy dañuy waxtaane qualité melokaanu murit moo tax léeg nga gis benn waay gis benn waay bu. xaw a yamambaay ci mbedd mi rek mu bëgg cee àtte murit yi déedéet bu tuddee Serigne Touba d'accord mën ngaa dajee commande ba tërëf yow bu ci àtte murit yi bul dëkk ak nit ci koñ mu doye bi nga bëgg cee àtte murit yi ankay gisoon nga beneen murit laataa ngay gis murit bii gisoon nga Seex Mustafaa Falilu mii ma la wax moo lëpp dignité dàq laa jàng gën la juddu Serigne Touba di maamam bu gisee doomi sëriñ tubaa jàpp ne kii mu gis mooy léppam mooy sëñ fàllum xoolal loolu ñu def ñu def loo ko ko mu def ko waaye kon melokaanu murit am na kasu rajab gii li mu ci def sëñ daam am na élément bu mujjee ñëw noonu ci ci yow génneel ni ko nga xool ni sëñ Modou Bousso Dieng fonke woon euh, euh, kasu rajab ba tax tey nàmpatal na ci taalibe yi ñii murit ak ñi dut murit waa kër sëñ fàlloog waa kër keneen ak keneen kenn ku ne Kazu Rajab mënoo koo muñ ñu dem déglu Seex Mustafaa ci ay kàddoom ni mu tàmbalee màggalu Kazu Rajab danaa <laughs> ne bis bu ñëwee dem Daaru Salaam fanaan fa ba set yaa ñu mu xëy ñu ci kër gi am bis nag man ma dem ba nawet ma ne ma dem sama kër mu tudd ba nga xam maa ngi yoppanteeg ñaaw ñu woo si ma ma ñu mu ne ma ko demoon waay waaye fonka mu guddi gi waay ji de ma ko guddi gi dama ci àddina boo na jógee suñu bamba maam dama am kon nag googu du def fa maa ngi fi def nangam ne ko bi ak mu ne ma naggal naa ma may des naa tuuti tooj kolal bi ma dem Aïcha daal dem bu kenn xam ne si ma dem biddanti nag dégg ñoon ma gàtt ma foo nekkoon waajur foo nekkoon foo nekkoon nekk ma damaa demoon guy lonk rek fekk xaay rek guy lonk na ko daax boobu ba mu demee at bu njëkk ma nag mu nga xam ne mooy 1968 ma dem ci rakkaat ji rakkaat ji gàmmu maam kon ne ko ñu war koo def ma fàttalan la ma waxoon 1969 nag ma dem ca gàmmu ko Kinshasa kon Kinshasa anak di Mbacké mi ci di gis ak Moussa Kane ñu koy dund dund ak takusan mu gën tok ci hôtel bi di waxtaan sëñ fa da nga am bis bi ak mi ngi jam ko ci fatte ko koka noy def kon ya kalau sun demé rek xana jangi kamil te bañ ko jaag dafa dafa ak dara takusan ñu dem ci nak ma ne gam rek ma dégg fëgg buntu bi ci ni tax nga xam ne moo am ndax dama jub dama ci jub na loolu nga xam boo xalfati ko la ko waxaate rek dégg nga maanaam mu ci fekk bi maa yeewu mu ma génn mu fekk maa ma jiitu postulé ci bunt yi day boobu du màkki ne ko ñëw tëdd fii fekk moom suba ñu ñu toog ci toog tëdd fi suuf nekk ma ne gam ma rek maa ngi dégg ngelaw li li ngelaw xam naa ne maa ngi Kinshasa ma gént nag gént ma gént jéggi Abdou Mbacké mu dikk ascenseur ba dama ba ma fekk ku toog jër bu sëq bu weex tàll yor kaalu gu wàcc ñaari ñaari wet yii ñooy ko xool ma ragal ko dafa bëgg daw nag wuti nag wuti nag su ma ne ma eh ma gesu sikki mi daan ne maa xoti wala ma laa waxoon dina xefet yeewu maa yëpp du màgg ba mu suraat ñu leen dañ doon sañ fa la gis naa ko ko soo jëm at mi lañ kon nag tënk baa ngoog eh, dégg ngeen sëñ Modou Moustapha Mbacké Falilou ci ni nga xam ne moom la fonke Kazu Rajab ñu ñaan ñu fonkale ko di ko ñaan waxuñu taaliba mbir rek mbaaye bépp jullit di wax ashadu an laa ilaha illallah ñu ngi lay ñaan nga fonk la lool ndax sëñ Fall moom yeewoo na ko Eh, ndaxte lu mu joxe ndigal la lu mu fàttaliwaat la lu mu liggéey. borom Tuubaa dafa wax ne yàlla fajal yitte tey mbooleem ñi jóg di ma jëfal lu ñu sàkku may leen ko te boole leen musal lool la way wi firi kon nag Kazu Rajab dëgmal na ñuy ñaan léegi waxtaan wi yàgg na sax lool waaye ngeen bal ma ci ndax waxtaan yëpp ñu ngi woon nag ci sëriñ bi ak jumaa ji yu sëñ bi doxalin sëñ Fallu ci ak nekkam lañ ci mën a wax li war na dellusi nag mooy Kazu Rajab kasu rajo bi day guddi goo xam ne gii moom du guddi sëñ Fall rek guddi yonent bi sallallahu alayhi wa ci la woo yonent bi sallallahu alayhi ci boromam foofu la sunu wax ne fa bi yekke yekkewal na jaam bala mu ko yekkewal wala tënkal boo xam ne kenn mënu ko fii sëñ Fallu bi itam mu ngi dikk ci Kazu Rajab guddi googu loolu nag moo tax di ko màggal di barkeel ci itam ci rayaan rayaan rayaan yonent bi sallallahu ñu nekk ci guddi googu yi ngir yonent bi sallallahu alayhi ndax guddi gi sëñ yonent bi ko moom sëñ Fallu jënd ca bokk waaye yonent bi ko moom ndax ci ko la mu jaaxal man man man laa wax de ci téere yi la wax ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam gannaaw bu ñu raaree la dem la dem Baytul Maqdis yëg ci borom ji borom dikk fu julli fajar màkk fi falu itam diggante fajar fajar ñun lañu wàcc benn salaam loolu nag kon ah <laughs> kooku leen la te itam jugul lesin bi tamal guddi gi màgg ñëpp ko war a màggal islaam kuy julli war nga màggal julli juróom ci la ko suñu borom jox yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon nag boo guddi ko moom ko moom ko moom ko ko suñu fa la ko moom suñu fa la ko ci dikkam yéen di ko dem ci boromam jëli ko ci lislaam ndax lislaam kat lu ci ponk fi man xaw ma ko man ci guddi ga wàccoon kon nag guddi gi ñëpp ko war a màggal kon maa ngi woon ñëpp man nga màggal ngir yaar yi nag laa ko moo tax ma ko màggal waaye li li li sama danga fonk dëgg dëgg rek fa dénk ko ne fongal ma ko moo tax ma di ko def borom bi di ci guddi ma ngi woo ñëpp nag di leen seenu ci jàmm ñi ñëw ak jàmm delloo ak jàmm may seen kër jàmm fikar fa jàmm fekk tuba jàmm te am ci barke tuba nag ndax soñ tuba wax wax na ci ne loolu moo bëggoon lool sëriñ bëggoon lu baax lool Eh, noo ngi am te lool nag ndax àddina bépp fi mu ne kenn ku nekk yaa ngi naan eh, message yi noo ngi koy jot waaye moom moo tolloon noonu moom Cheikh Moustapha Fadilou mës na ne eh, sëñ sëñ Modou Moustapha da daf damaa ñëw mu ne ma def naa la ci sama jiba maa ko dégg mu ne yow yow yow yow Modou Modou Modou def naa la ci sama jiba am kasu rajab goo xam ni mboolem luy kudd ak décor yëpp sëriñ Mbàkke soxna loo sëriñ Mbàkke soxna da ko da ko da ko da ko maa ko jaayante waaw maa ko jaayante waaye keroog dafa mujj daal ne na ma sëñ Moustapha defoon rek loolu noonu laa def sëñ Mbàkke soxna Lo fii fii laa ko def def naa ko fii def naa ko sama jibo loolu nag jiboom jooju yàlla nañ ci dugg nu murit ci barke Seexul Xadiim ndax sëñ Moodu làq na ngërëmi doomi sëñ Tuubaa yi waaye xoolal ni mu defal sëñ Fàllu jeexoon tàkk ci moom bëggoon ñi mu bokkal sëñ Fallou lool ndax euh, sëñ ba Ahmad Badawi mës na ne ma ñun xamuñu sëñ Fallou mooy maanaam njabootu sëñ Fallou gi nga xam ne ñoo gën a féete ndaw nga xamante ne 68 bi fi sëñ Fallou di jógee ñii ci njàng lañ tollook nangam ak nangam ñooñu xamuñu sëñ Fallou muy ñu góor ñi mooy ñu jigéen ñi waaye kenn ku ci nekk xoolal sëriñ Cheikh Awa Balla mi nga xam ne mooy caatum sëñ Fallou kenn ku ci nekk sëñ Moodu def na la noo xamante ne jooyoo sëñ Fallou benn yoon loolu mooy. jiitu ba noppi ñi ñi nga xamante ne yaa leen jiitu nga uuf leen waaye loolu mi ngi ko donnoo ci turandoom wu tedd wa Seex Mustafaa Falilu Seex Seex Moodu Mustafaa bi fi sëñ Tuubaa jógee sëñ sëñ soxna May danaan wax naan nun bi demee ba xàmme lañ doog a xam ni sëñ Moodu Buso sëñ Moodu Mustafaa wa euh, noo bokk baay waaye ma seen taalibe baay bi rek la la la daan wax maay seen taalibe baay dañ daan xéwlu ba noppi mun leen fompu leen ci sama mbubb loolu kon lu mu donn la moom Seex Mustafaa Falilu waaye nag euh, lii mooy yoon wi lii mooy yoon wi ndax euh, sëñ Moussa Ka dana sëriñ Touba defar nga say bokk defar ay jàmbur ba ñëpp jag nga jàpp sa jàmbur xoolal seex ma yaasin ummi Dieng mi nga xamante ne ci maamam la nga xamante ne sëriñ Modou Safa waxoon na ni biñ fi lalee dénd beeg léegi li fi xew lépp xam na fi xam na ko biñ lalee dend beeg léegi seex ma yaasin ummi mi maami sëñ Modou sa Dieng nee na ko li fi xew lépp xam na ko. biñ ñëwee di ko siyaar ne ko sëñ Modou Safa nee na biñ la lay dindi beeg léegi li fi xew lépp xam nga ko dane daa baax rek waaye ak bañ ko lalagul li fi xew lépp xam naa ko kon Cheikh Moustapha Falilou fetalug ñaari ngémmiñ la waaye gi nga xamante ne mooy gën a tàkk moom mooy gii nga xamante ne moo jëkk ko wuutu sëñ Fadlu kon yàlla na ko yàlla dolli xéewal fa mu nekk am na ba sëñ daam nga préparer élément bi ubbil ma téléphone bi ndax fi mu ne xam naa ni ku mës a nekk Italie mu fekk la fa yaa ngi lox bëgg a dugg ñenn ñi ci biir réew mi lañ ne ñii padduwaa lañ ko daan fekk bu mosaan a toog ba sol ba ba sol ba sol bone carré bi dal ne lu waay lu waay bëgg na ko wax <laughs> Cheikh Moustapha Falidou xoolal loolu lu waay bëgg na ko wax waaw waaw wax na ne sëñ Saliou mos na koo woonu mu ñëw mu ne ko xel comme ñu ma jox laa bëgg ndox bañati faa manqué mu ne sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ Saliou leer na leer na leen ni mën naa ko waaye li nga may defal mooy nga nga ñaanal ma ni ma di fi yàgg yow xoolal li mu wax sëñ mu ne ko loolu rek laa koy jaayee yow na fi yàgg ba sëñ Saaliw ne ko dinaa fi yàgg mu doog ne ko xel kom ndox du fa manqué tool yépp tey bu ñu xëyoon tey ne benn nawet amul xel kom moom day am ndox ndax sëñ Moodu Bousso moo jubóog sëñ Fàllu te sëñ Fàlloo jubóog ki yoon ndox kon yàlla na ko yàlla dolli xéewal fa mu nekk 33 825 09 60 murit bu dugg ñoo xam ne dugg na noo ngi ziar soxna Awa Gadiaga suñu wayjur wu tedd woowu di ko siyaar bu baax a baax ziar soxna maam Faati Mbàkke di rek ci sëñ Jiili Mbàkke ak euh, mbokkam yépp nga xamante ne moom euh, mën naa ko de sa suñu bunt ci sëñ sëñ Moodu ndax ndax ndax moom moom moom moo nekk ak sëñ Basiiru Mbàkkeem sëñ Abdu Xaadir euh, di ko di ko di ko liggéeyal di magu kër ga noo ngi ñaan suñu borom dolli ko ay xéewalam muy suñu xarit nag di suñu lépp xajoo ñëpp xajoo ñëpp yor xol ba sëñ Moodu bu yoroon mu yor ko moom soxna maam Faati noo ngi koy ziar ziar soxna Awa bu baax a baax a baax di ziar njabootu sëñ Muudu gépp nag sëriñ Maxtaar sëriñ Ahma sëriñ Ahma ñoom ñëpp asalaamaaleykum salaamaaleykum aleykum alekum wa rahmatullah murit boobu sëñ Mamoor maa ngi lay ziare bu baax noo ngi ziar kooku noo def man la Baara kaw la sëñ Baara na nga def ñu ngi bu baax yaram ngay ziar ak waa Kaolack gépp ñu ngi fi alhamdulilah neen def coono yi. alhamdulilah sant sëñ man de yaakaar naa c'est la première fois ma woote ci télé bi. ah ndeysaan kon tey dañ laa laal mbaadu. waaw waaye daal damaa <laughs> damaa jàkkaarloog sama télé nii. Mhm. nga dugg ci njabootu sëñ Fall gi amatuma ci sago moo tax ma woote. ndeysaan ndeysaan ndax man daanaka taalibe soxna hmm. soxna ma Awa ak a baax. na nga koy siyaar baax. waaw dëkk ci wetuk armeel yi. ndeysaan ndeysaan xam waaw waaw. côté kër sëñ Basiirou Baara. ndeysaan ndeysaan ndeysaan Maawa. waaw di ko ziare nag mbooleem waa Daara mañ moo ko nuuree ni bi nga xam dañoo féete Ndakaaru te nekk ci moom. ndeysaan ñoo ngi koy ziar bu baax a baax ku baax te dal. waaw di ñaanal bu baax sëriñ Abou Moubarak nga am borom guddal fanam te wéral cëram. amin amin amin amin. di la di la nag lool nag di la lool lool lool. ndeysaan yàlla ñu sëñ boo ko ndax dëggu gi. ak pas-pas bi ak pas-pas bi moom murit bu ne seede na ko ci yow. alhamdulilah rabbil alamin. yàlla nañ ci gis waaye nag nga ne moom. Mhm. foofu la ñun ñëpp war a nekk. ndeysaan ndeysaan. kon ñu ngi naan ci barkeb borom Touba. ak mhm. doole Cheikh Mouhamadou Mountakha nii. Mhm. màggal gi nga xamante ni moom la ñu dëgmal. sëriñ bi bettee murid yi ak xéwal yu yaatoo yaatu yaatu yoo xamante ni danañ ko defal. barke Sëriñ Touba danañ ko bëggee. barke borom Touba. ndax bis bi moom day bisu ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp. ndeysaan. te lii nga xamante ni moom la ñu weesu. Mhm. firndeel na ne lii di ñëw. Mhm. mooy dàq lii nga xamante ni moom la ñu weesu. barke borom Touba barke borom Touba. ñu ngi lay gën a santaat bu baax nag. jërëjëf gën a ñaanalaat ah borom gën a dëgëral taxawaay bi. jërëjëf Murit jërëjëf waay. dëggal ko mboolem Murit yëpp nag. tawarkal la tawarkal la jërëjëf loolu nag yaram dëgg nañ lool lool. ndeysaan ndeysaan jërëjëf

ñu lay siyaar bu baax wàññil ma télé bi waaw. alhamdulilah nga xam doxaa da taalibe sëñ kii di Mbàkke moom sëñ Fall ma lay woo. ah sañ nga ko <laughs> ndeysaan. waaw ah, ñu ngi ñu ngi ñu ngi rafetlu émission bi bu baax de. ndeysaan jërëjëf. waaw ndax ndax euh, ñun moom sëñ Fall lépp day day suñ lépp. <laughs> waaw ndax it euh, sama sama waajur ci Mbuur. Mhm. mooy suñ suñ suñ màgget dëgg la. waaw di taalibe Sëriñ Jili Mbàkke Fàllilu. Mhm. waaw maa ngi koy ziyaare bu yëpp. ndeysaan. waaw ndax it moom sëñ Fàllu rek lay nooyee. ndeysaan ndeysaan ndeysaan. waaw waaw wallaahi wallaahi kon émission bi moom dëgg yàlla. kontaan nañ ci lool ñun waa kër sëñ Fàllu. ah waaw waaw ndax boo tuddee boo tuddee boo tuddee sëñ Modou Boussa Dieng rek. ñu laal ko ñu mhm. ñu waa kër waaw waaw waaw. waaw waaw kon. kon baa yéen a ngi waaj yéen a ngi waaj màggal gi même bu nit ku demut tamit nang ko nang ko magal moy ñentelu fan ci tam xarit wa inshallah wa wa wa joxe ñu koy bu baax. boo loolu mooy bisub cheikh Moustapha Falilou. wallahi wallahi wallahi ah ko yëpp waajal waaw. ñun suñu fàllu rek suñu fàllu rek la ñu am. wa wa wa wa waaw ak ko mat ndeysaan. wallahi wallahi wallahi yoy dañ lay ñaanal suñu borom gën defé yagal lol amiin amin barke Cheikh Khadim amin barke Sëñ Tuubaa ndax ku bëgg Sëñ Tuubaa ku bëgg Sëñ Fallu ah, alhamdulilahi rabbil alamin te waaw waaw waaw ñoo ngi lay ñoo ngi lay ñoo ngi lay dégg bu wér de wax dëgg yàlla alhamdulilah jërëjëf waaw waaw duñu fàtte suñu sëriñ bi nag sëñ Abdoulaat moom sëñ Jiili moom sëñ Jiili noo ngi koy ziar bu baax moom sëñ Jiili moom sëñ Fall waaw noo ngi koy ziar Mariane Mendy ngi lay dégg nag Mariane Mendy kenn du tudd sëñ Jiili <laughs> wallaahi di ziare waat sëñ Galas moom sëñ moom sëñ Jiili mooy xalifa sëñ Jiili moom sëñ Fallu ndeysaan moom it noo ngi koy ziar bu baax a baax waaw waaw waaw ñoo ngi lay ziar waat yëpp. njaboot suñ Fallu gépp jërëjëf jërëjëf. jërëjëf jërëjëf waay jërëjëfati ndeysaan eh, jërëjëf noo ngi siyaar njabootu suñ Fallu gépp ndeysaan sëñ Modou sëñ Moustapha Falilou eh, ci xol yi la ne ci xol yi la bóof waaye nag eh, noonu la noonu la mën a mel ci ci ci yiw ga ci ci ci baax ga ah, soo ko gisee ah ni muy waaje rek di wane taaru sëñ Touba xam nga maam Cheikh Anta sëñ tubaa da nekk euh, sëñ Moussa Ka dana ko woon yaay échantillon ci yoonu Bamba waaw échantillon mooy maanaam boo génnee nu xam ne ab murit génn na sëñ Modou Sa Dieng dafa murite woon ab murit la woon moom loolu kon euh, topp way juróom ba sëñ Fallou rek moo ko may lu mu am waaye tamit xoolal ak njaboot tamitam noonu leen mel baax yaru bëgg sëñ Touba bisimilah. waaleykum salaam. sant naa ne. sant Serigne Touba. maanaam Ndeye Mbacke Adja Ndeye Mbacke Gueye Kaolack sotu Alla Samba Gueye. soxna Samba lay Fallou. ak dama sama xol mhm, di ñaan fan gudd ak yéen yàlla na ko yàlla defal. amin amin. amiin. di sant sunu baay bu baax ma àllaaji Caaba Gueye Touba Gueye. ndeysaan Samba man bi may gone dama naan wa sama maam. Mhm. Alla Samb ak Mbay Seck ma ca Ndar. Mhm. ñoo sëñ Fallou bokk lépp. ndeysaan. ndax boobu sama maam Mbay Seck ak ak Alla Samb dañu daan ñëw Ndar. Mhm. jéem mu ak ronk ca tool ya boobu maa nga Ndar. billaahi boobu maa nga Ndar li ma ñu Kaolack nag dafa sëy. c'est. waaye bi ma déggee li ma bett nga Alla Samb suñu lépp lu ñu ñaan di naan ci barke sëñ Fallou. am kon bi ñu déggee waxtaan ak bi ñuy bëgg loolu kontaan yi jëkkanteel ma gaaw jënd ma crédit. a ah, waaw. yàlla na yàlla yàggal fi jërëjëf. jërëjëf jërëjëf kontaan noonu sunu xol sedd na buy. ndeysaan jërëjëf yàlla jële mbas mi màggal gi yàlla ko yàlla. amiin amiin yàlla na fi yàgg. amiin barke sëñ Touba amiin yàlla na nga yàgg jiite yow nii. jërëjëf man sër Alla Samba Gueye laa. ah maa la ko wax maa ko wax. moom ah, moom ah, euh, Touba Gueye. Alla Samba may na Samba am kër fii. Mhm. waaw si sëñ Abdou Roq. moom moom sëñ Abdou sama biso. <laughs> moo ko daggal fii kër ci Daaru Minam. <laughs> ndeysaan Aliou Samba nga foofu. ndeysaan ndeysaan. jërë ndey Mbarké Guèye Kaolack jërëjëf. jërëjëf ma bàyyi ñu leen dugg jërëjëf. jërëjëf waay jërëjëf jërëjëf. ñu ngi siyaar baax a baax a baax njabootu Sëñ Tuubaa gépp jël siyaar bi nag tey tey dama koy teg ki loxo euh, Serigne Thierno Diaw mi nga xam ne mooy xalifab Seex Mu Jóob Cheikh Modou Diop Pakhaw nga xamante ne euh, euh, doy na waar kooku kooku xajut ci émission euh, noo ngi wàcc ndeysaan waxtaan waat ko moom it ma nga toog di bég ndax moom léppam sëriñ Fallu la sëñ sa Baye Thierno sëñ Fall da koo yar ba noppi muy mën naa ni promotionnaire u sëriñ Cheikh Moustapha Falilou kon lii nuy wax moo nu ko gën a xam ndax moom du koo dund moom noo koy siyaar ak sëñ Abdou Baaxe Jaw waa kër gi gépp ak njabootu seigne mut pakh Paxa no ngi len di siar ci barke Cheikhou Khadim na njabootug seigne Touba gi ñi ngi len di siar di len bëggee di ñaan seigne Touba may nu jàmm ci barke Cheikh Mut Diop mu melni ni mustapha Moustapha Fallilu du sëriñu keur sëriñu murit yi won barke seigne Touba bisimilah bisimilah bisimilah. salaamaaleykum. Patte bismillah yëngu alaykum wa alaykum salaam. waaleykum salam. man la soxna Maam Boussa Mbacke. soxna Maam Boussa Mbacke man. mu sëñ mu sëñ Maam Mor Mbacke. mu kan. ah yow mii nag yaaram ya wara wote nak nag yow yow moom yaa war a woote <laughs> ah. Ya. mbaa yaa ngi may ñaanal. ang may ñaanal bu baax. ah alhamdulilah. ci wàllu sëñ Fall. waaw fan nga dëkk Touba ma ñëwetee Touba siar si la man ma wara a Ah? Aliya. waa baax na dinaa dinaa fexe ba siyaar sëñ Maam Mor ma ñëwee nag na ma la wan. waaw. man yaay sama sëriñ. waaw. jërëjëf Mbacke Balla. <laughs> Eh, ndeysaan ndeysaan ndeysaan waaw waaw ci barkeb maamam Cheikh Moustapha Falilou aajooy faju eh, téyel ma tuuti téléphone bi eh, soldaar yi nga xamante ne mës nañoo jàng ci kanamam loolu sëñ Modou Sow ko njëkk am bi ñu yëkkatee xasaayid yi bi mu leen ñaanalee am na ku ca bokkoon nee na ma ku ca bokkoon gradé nga soldaar yooyu nga nañ nañ déglu ñii nga xam ni ñoo jëkk a ñëw màggalu Kazu Rajab ànd ak moom liggéey bi bisimilah. nañ sëñ bi ne lii lu ci waa ji liggéeyee lu ci waa ji liggéeyee na barke bi moom ca ndam وهبنا سرية تدعما على ملاك يا قديما وهب لنا سرية وليات سلم بك يلا في أبي sëñ bi ne mi ngi leen di gërëm bu baax a baax itam itam seen njàng mii. nii seen njàng mii. yëngal na ñëpp. na ñëpp. ndax xamuñu woon ne am ngeen loolu. ndax xamuñu woon ne mën ngeen loolu. waaye li ma doon ci barke mu daje dog ci barke Sëñ Fall barke Sëñ Touba. bu déwénee ku nekk da nga yokk. bu déwénee kenn ku nekk ci yéen dana yokk. waaw kenn ku nekk dana yokk. jërëjëf. Eh, ndeysaan waaw waaw yàlla na nu yokk ñiy seetaan ñëpp rek barke Cheikh Ahmadou Bamba eh, bàyyiwaatal eh, téléphone bi mu demaat tuuti ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu bàyyiwaat ko xel bu baax a baax ndeysaan di siyaar ñi seetaan ñëpp nga xam ne kilifa yi tey xoola soxna Faat Kiné Guèye ca Bologna taalibe suñu Abdou Karim Mbacke moom suñu fàllu nee na ma sama xol sedd na ndax tey sama soppeeb sëriñ ngay ngay waxtaanee suñu Abdou Karim daa bëgg sëñ moom da koo bëgg moom moom moom moom beneen affaire la moom waaw buy buy ñaan sax da ngay gis buy tudd sëñ Modou moom dangay gis mu mu mu mu taxawaat armé wu eh, ndax xam na ni mm-hmm. eh, aajo yi fa lay fajoo bisimilah. salaamaaleykum. salaam. sëñ maa ngi lay ñu ngi ziar murit boobu. murit bi de Touba la dëkk noo ngi lay ziar bu baax murit. di bàyyi Malick Caam sa bi. ah Malick anamu. ñu ngi sant bu baax. waaye maal maal maal gi mën a jàng waaye barke sëñ Tuubaa. ñu ngi sant bu baax tubaarka alhamdulilah. nuyul ma ko lu bëree bëree bëri. sëñ Maamoor Mbàkke. Euh, sëñ Fallu kenn du moom. sama waaje. <laughs> sunu waaje. waaw sunu waaje bala ma fay indi problème sax sunu waaje. xam naa am na kuy mer naan dégg mu naan sama waaj sunu waaje. ok man ñi de. waaw. xam naa ku ne am na lu ma defal waaye man li ma defal. Hmm. kër gi ma dëkk ci Touba de. Hmm.

kon sëñ Fallou kenn du moom. Mhm. te it sëñ Modou Bousso. Mhm. ba ma ñibbi see Touba di ko wër ci dëkk bi ba gisee ak moom. teg mhm. ko ci kër gi sëñ Fallou gi ci jumaa ji. ndeysaan. man ni yow moom ne ko Mbàkke de ba ma ñibbi si Touba fu ne nag wër naa la fa. mu ne ma kon dëgg yàlla maa ngi maa ngi maa ngi maa ngi. maa ngi waaw suñu <laughs> tàllal loxo yi. ndeysaan ma tàllal loxo yi mu ne ma xéwalu Touba barkeb Touba lépp Touba fekk si la ci biir Touba ba képp koo xam ne rek. dégg nag sa tuxu si biir rek. dana la ñëw ba ñoom tuxu si Touba loolu sa Modou maa ma ko wax biir kër Sëñ Fall. barke sëñ Touba. Euh, sëñ na loo xam ne daal moom. ndax wax dëgg ko te ñaan la ñëpp rek. <laughs> exactement Magal gi ñu dëgmal. ndeysaan. maa ngi lay waatal ci barke Sëñ Fall ne. magal mm-hmm. gu ñu mas a magal magal gi ñu dëgmal. barke sëñ Touba d'accord naa nangu naa de. barke sëñ Touba man maa la wax loolu. nangu naa de. suñ Muntaxa ubbi na màggal gi. li ñu moo koy dàq. mooy dàq gën a xéewale zéro cas. ku ci am xéewal ba <laughs> jërëjëf papa jërëjëf waay. jërëjëf moo tax ñu rëy làmmiñ ñi ne ci tele yi bëgg siiw ah coow mbott yi nga xamante ne di tudd màggal gi ku mës tarayal Serigne Touba ganaar ñu la nga wax ci màggal gi. murid yi dégluwul la dégluwul la barke Sëñ Touba. bëgg siiw ak yambar ñàkk fayda amoo charisme tekrek rek tax ngay wax baleen màggal gi seen yoon nekku ci yeneen màggal yi des sax dañ koy màggal waaw màggalu sëñ Moodu ku ku mënta ku mënta dem sax koñ ba nga nekk berndeel leen ngir cheikh Moustapha Fall lu faj sa aajo nga xool allo allo nga fas sa aajo nga xool man maam Mor maa ko wax ah. bismillah oh. maa ngi bëgg a tàng waay màggal gi ku ci dugg rek léegi ma tàng barke borom tuba bismillah bismillah bismillah kooku Alaaji Moodu Alaaji Moodu man. di woote dakaar di woote Dakar. bisimilah. day def. sant sëñ Touba. def nga lu wér. jaajëf. waaw. naka saa. alhamdulilah. jaajëf. ñu leen di ñaanal. jërëjëf. di ñaanal gudd fan ak wér ak naataange. amiin mucc mucc lu bare. amiin barke sëñ Touba amiin. yàlla sàmm yàlla aar la yàlla wiir la. amiin. barke sëñ Touba. jërëjëf. amiin jërëjëf waaye. jërëjëf waay murit ndeysaan serigne Abdou Samad mom serigne Sohaybu nong koy siyaar bu baax baax di ziar bu bah a baax Dan mumsing serigne abdoulat Cheikh mohammed Dan di siyaar serigne Sidi mbakem serigne serigne Abdou ndaysan birki demb ndaysan na na sa Cheikh Bass mom serigne Abdou khadir fam nekkon lamuy sori sori dana ko damay ñew ba ci yow eh, mu muy lu rafet momit nong koy baax di nuyu di ziar baax serigne eh, Lamp Diop Euh, doomi sëñ Cheikh Fall Tàkk jóob noo koy ziar di ziar baax a baax sëñ Cheikh Bàcc nga xamante ne mooy euh, sëtu Cheikh Ibrahima Diop almachar yi euh, takkook yoonu murit waaye tamit bokk ca way juróom bokk ca mag ña sëñ tu nekkoon ak sëñ Tuubaa ca njaarim bisimilah bisimilah bisimilah lay siyaar waaw dina murit wàññil ma télé bi tuuti rek bisimilah. ñoo lay siyaar wér lay siyaar bu baax a baax. yàlla yokk fan wi. amin amin barke sëñ Touba. kontaan kontaan nañ yow barke sëñ Touba. jërëjëf jërëjëf. kon saa yu ko xasee commencé. Mhm. benn soxla ci télé bi rek. ndeysaan ndeysaan. amin waaye amin barke sëñ Touba. kontaan naa ci yow lool. mbaa mbaa sëñ Moustapha Fallou bi yéen a ngi koy waajal. waaw ñu ngi koy a baax. tam xarit ba mu am ñeenti fan mooy bis bi. ñu bu baax a waaw bu bisub tam xarit ba dellu sëñ Mbacke Bousso. waaw waaw nu waajale yëpp màggalu Touba gi rek barke sëñ Touba. lépp lay waaj. wuy ma luñ ci góobee gar ko. <laughs> sëñ Mountakha Mbacke barke sëñ Touba murid yee lay góobal garal la waaw ngay laax rek. barke borom touba waw yoon seigne touba ak gina tan kanam rek luñ ci goobé rek gar ko waw kontaan na ci yow nak baax ba jere jef yalla yalla yalla yalla guddal jere jef jere jef waw dañuy magali ñun luñ ci góobe rek gar ko barke Serigne Touba waaw wa ke njabootu sëñ modou Mamoun Ñang noo leen di siar baax a baax sëñ jili Ñang ñong koy siar euh di japp ci magal gi di ci taxaw sëñ abdoulat mom sëñ Cheikh Gaynde Fatma ni mu taxawé ci magal gi mu yëpp a koy bismillah bismillah murit noo ngi siyaar alaaji gay tuba jaayam mbaa yaa ngi waaj màggal gi pare ah kon yow jekk nga yow yow mën nañoo bokk groupe maag yow sëriñ Mamor Mbakke Cheikh Muntaxa Mbakke waaw yàlla fi yàgg te wér amiin amiin kenn du sëñ Muntaxa ah, waaw Mamor bu baax li mu wax ci màggal bi. Mhm. ba taalibe yi xeebuñu ko. li mu wax ci màggal gi. waaw. benn taalibe du ko xeeb. barkeb Seexul Xadim ren lay gën a neex. <laughs> ren lay gën a murit. waay waay waay sama xol baa ngi sedd waaye man tàmbali naa màggal gi. waay sëñ sëñ sëñ sëñ mu ndaxaar. Mhm. lum laala gën lum laalul. lu laa laal a gën lu mu laalul. lu mu laalul. d'accord naa d'accord naa. sëñ Mamor. Mbakke. di nga wér di nga gudd fan. waay amin waay waay amin waay. ci barke Cheikh Mountakha. waay amin waay barke sëñ Mountakha amin. maa ñu naa leen waay mbaa ñu ngi waaj. barke Cheikhul Khadim. waaw waaw di baax di waaj jëkk nañ bare nañ. gi daal maa bëgg murit bu ne. waaw foo mënti nekk. waaw bu ngoon jotee na nga teg kafteeru kafe gi. di sant sëñ Touba di durus xaside yi. di solo daal di di. xaaral ma woo soxna commencé ko waaw woo ko woo ko nag kenn ku ne woo soxna si ne ko del segg murit bu ne war naa matérielu segg kaayu kafe këram. di dem sport di ñëw di naan ci kafe gi di lekk ndawal bu baax ku tooñ sëñ bi ñu duma ko. sama mbokk yi ma sama mbokk taalibi Cheikh xam nga yu ma leen di wax bu tàkkusaan jotee. ñëw leen naan. jeex na. ndeysaan sëñ Bamba ko indi. waaw moo ko moom. moo ko moom. mu di sëriñ barke Cheikhul Khadim. jërëjëf Murit jërëjëf. jaajëf sëñ bi Mamour. jërëjëfati jërëjëf. ndeysaan euh, noo ngi siyaar baax waa jaayaan gépp rawatina sama maam jafane di sama goro fa am soxna ñu ngi leen di siyaar gis nga café gii nanu koy ñaan alaaji sulay gay mu njaareem dang koy siyaar baax munoo waxtaane sëñ muru sa jëng te siyaaroo ndax moom kenn kenn lu sëñ fàllu nee na ma sëñ fàllu nee na kuy def ngoon gu jot nga mos ci kafe gi ngir jëmmi sëñ tubaa kenn du la seeti hôpital nee ma kaasu kafe la ma sëñ fàllu jox jox sëñ moodu kaas jox ma kaas dama mbaa ngoon gu jot ko mos man ko mbacke ginaaw wax nga ko dañ koy def rek mu ne ko kuy def ngon gu jot nga mos ko kenn du la hôpital té café gi lañ toké won ci gabon man ma dem ba fofa ndaysan cheikh bamba def juromi at ma yomba kenn waxatul ki dem ba bamba tay nit ñi reuy lamagne kenn ku ne di wax ci ki nopil dañ ni magali barke Serigne Touba nun lu nu serigne muntaka wax dinañ ko def waaw nun mom la bu nee weex na ñu ne ko tàll mbàkke bu nee ñuul na ñu ne ko kukk bu nee xonq na ñu ne ko coy bu nee tooy na ñu ne xepp sëñ Muntaxa la ñuy déglu ci lu mu doon barke sëñ Tuba loolu nag luñ ci góobee rek gar ko <laughs> luñ ci góobee rek gar ko barke sëriñ Tuba daam ana loolu sax ana loolu luñ ci góobee gar ko barke sëriñ Tuba nan gëmaat sëñ Tuba ñuulu sëñ Tuba aleykum salaam jërëjëf Mame Mor Mbaye. Mbakke. soxna Sophie Tall soppay Touba TV. ah. waaw ana ngeen Covid rek a tax yéen daal soppay. ñoo ngi nii ñoo ngi nii dañ laa gëj a dégg. soppay yéen ragal Covid. dig leen <laughs> dajee ñëw leen ci télé bi ñu def ñuy dund ñun. oui ma léegi bi de. <laughs> ma ñu ñëw ci télé def benn waajtaay. Ah, waajtaay wax ko soxna Betty wax ko soxna Betty ñu woote. léegi woo naa soppe yëpp leen ñu def benn waajtaayu màggal. mi ngi noonu wax ko soxna Béti rek ñu coordonné ñëpp daje soppe yi. ñoom soxna Touba TV ñoom soxna Ndeye Sène ak ñëpp. est-ce que duñ ko defee Masaalikul Jinaan sax. gisoo ko de day gën a neex rek Mbaye. jaajëfati soxna Sofital. waa kay Mbaye maa ngi kontaan ci ñëpp di nuyu ñëpp di siyaar ñëpp. jërëjëf jërëjëf. di kontaan ci sëñ Mountakha di ko ñaanal Mbacke Balla mu yàgg si loolu te ànd ak wér. amiin amiin barke si. nuyu soppe yëpp ñu nuyu jëwlin euh, Mbacke yu fay. alaaji Mbacke yu. nuyu naa soppe yëpp nuyu ñëpp ziar ñëpp. ak bëgg Seex Moustapha Falilou. di ñaanalaat sama sang bi rek sëñ Mountakha mu sëriñ Basiir mu yàgg si jërëjëf jërëjëf. jërëjëf Mbaye jërëjëf jërëjëf sëñ Daam am na benn waay bu ñu wanee bërki démb ci seen TV maa ngi nuy waa seen TV yëpp euh, mu am mu am lu mu wax murit yi bëgg ci lool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

barke seigne touba luñ ci gobe rek gar ko barke Cheikhul Khadim Cheikh muntaka no mourid nyam. tay ci guddigi ma ngi ñaan bepp talib seigne touba beuyit bo jekku salat go jekku nang ko nang ko jang wala xasida gula neex man nak mom rabbi maestron laay jang tay ci guddigi ku man wakana akan ñu ñaanalat seigne muntaka xam nga daf ñoo lo won ne ne ne moy fas waye nanu ñaan tay ci guddi tay seigne muntaka yag fi te wer man ko ñaan ñun murid yépp kuy setan, maa ngi koy ñaan ci ñima ñima saña ñaan sañ diglé wu ma nak damay ñaan ndax man tuti na ci ma ngi ñaan murit yépp def lool ñu ñaanal sëriñ muntaka mu yàgg fi lool te wér bismillah bu fekkee amna na ko dugg ñu jël wa alaykum salam sëriñ maam Mor Mbaye Taloubé Mbakke koku man la sen ben nek ben dong bu nek fi Dakar ma ngi dekk forage nak bi ci wonu dar musjid Touba yow nga waaw ah, ñoo ngi lay sant bu baax baax te rafetlu émission bi. yow identifié nga sa bopp murit nga. ah murit yi de bu bari woon sa morom moom wax dëgg yàlla moom moom dana dana yéeme de. ah. man bari woon say morom de moom wax dëgg yàlla moom duñ jaaxle dara moom. dëgg ah, man de kenn du laal sëriñ bi di ma romb di jàll. mukk dëgg la de dëgg la loolu ñëpp. xanaa nga wax ko pare kay nëbbatu te du sa sa ay sëriñ bi moom. waaw <laughs> ah, pop pop pop kafuma ci réew ma ci. amoo ci saako amoo ci saako tey noonu la nag sax mu ndaxaa mii <laughs> Ah, yàlla yàlla bàyyi ñu ko suñ kanam yàlla yàlla bàyyi ñu ko suñ kanam amiin barke sëñ mbaa mbaa mbaa yaa màggal gi laa ilaha illallah guddéwén ma wuy ma <laughs> ah guddéwén laay koy màggalee ndax dina fekk dina <laughs> fekk ma am ma am pàkk ba tabax koog yooyu guddéwén guddéwén yooyu mais gii man kay man kay keroog damaa dégg waaye naan eh, moom daal eh, du du màggali ma ne ah, loolu ba suñ Maam ko rek ba xam moom moom moomu nee ko nee ko nee ko mësut a ñëw màggal ba murit yi yëg ne ñëw na. wax nga dëgg de wér na bilaay wax mbaay wax nga dëgg. coowul mbott ca dégg la du tee nag yaa naa ni nee ko nee ko moom moomu. Ah. amul kër Touba dalalul ñaari gan. est ce que wax nga dëgg. moom gan la woon gu doon gane si moo ñëwut na toog. dë dëgg la waaye dogguma la bi bi si ñëpp laan waxee ne léegi nan waajal màggal gi te bàyyi te bàyyi waxkat yi. waaw damaa gën damaa gën woyof affaire bi sama xol gën a seet. si Abdoulaye Gaynde Fatma xanaa. sëñ Abdoulaye Diène Farma. barke sëñ Tuubaa te ba waxkat yi ñuy mbéb mbébi rek. waaw waaye mais nag attention de wuy ma. waaw ñoo yey di wax de xam nga lu tax. waaw gone boo ko dóoree ba noppi nag. waaw da nga koy bàyyi mu jooy nag. ah waaw waaw <laughs> man ñu daal leen bàyyi ñu jooy. ay gone lañ rek yu ndaw waaye jërëjëf kan maa ngi lu kañ la. Euh, moom xam naa al euh, kii bi euh, bisu tam xarit. tam xarit ñetti fan ñeent rek. wax nga dëgg ñu waaw na ko waaw waaw waaw na na murid def kafe seen kër. ku ko man jàng kaamil yi yéene yool bi Seex Mustafaa Fari. incha allah mbaay mbaay. lu waay man ci def bu bis baa. bu soobee yàlla bu soobee yàlla fasante nañ nekk fi ni géej waaye waaye suñu si maataan euh, euh, yow fasante naa yooyu ko fan nga dëkk ci Géejawaay. waaw mooy ci côté police bu naa Nimsaat police wàq mais man bu may sport yi foofu laay aw ah waaw maa ngi dëkk foofu de yàlla xam na ne foofu maa police bi de benn gi foofu waaw waaw ci seen bi am na benn soro matériel bi may exporté daal mi ngi nii sama oto bu ma paree rek takk naa dàll yi maa nga foofa <laughs> gisoo ni may ñaqe taal nañ clim bi te maa ngi ñaq rek waa nga def maa ngi jàkkaar baax na mbaay yàlla yàlla gën a barkeel xam-xam bi foofu dinaa fa ñëw incha allah mbaay baax danañ danañ ci kontaan loolu mbaay jërëjëf murit jaajëf jërëjëf mbaay ndeysaan waaye murit yee baax waay murit yee bëgg Sëñ Tuubaa waay murit man man dama leena a barke seigne touba ma bëgg murit motax motax man murit yépp ma gën man d'accord na loolu waya ah, doon murit sama ginnaw murid nak mom bi mu jéejeebulu tay bi ne seigne touba joxna sama bop tay diam bu la nexé def ma ay dal sol ma dem sa yoon waaw lu matérielu sëriñ bi sëriñ bi mom ku ko wax loko warta wax dañ koy fajj ci A ou B dañ koy fajj sëñ wax te télévision ko ñu que à de Cheikh il n'aura rien à aux pays occidentaux jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul. <laughs> sëñ Modou Kara ñuy dégg de <laughs> barke sëñ Tuubaa. ndeysaan. ndeysaan Mama Mbaye lay ziar. ñu ngi lay ziar yow la kan. man la soxna Anta soxna Anta. Anta da ngay wàññi da wàññi da wàññi sa télé. soxna Anta Yaraax. Yaraax ñoo ngi lay ziar bu baax a baax. sa émission bi neex na waaw ah, maa ngi koy jégalu tey de Cheikh Moustapha Falilou la. am na solo lool macha allah. ndeysaan ndeysaan. ñun moom Serigne Touba la ñu am moo ñu dimbali. ci kooku. ñu ñëpp àdduna àllaaxira. ndeysaan. jërëjëf waaye am na solo lool macha allah. jërëjëf jërëjëf. yal na yàlla kàttanal wéral la. amin jërëjëf jërëjëf. barke borom Touba. jërëjëf waay murit jërëjëf sëriñ Cheikh Assou fay mu daaru muxti noo koy siyaar baax euh, moom sëñ Modou Awa Balla nga xam ne mënoo tudd sëñ Modou te tuddoo ko ndax moom nee na ma sama lépp sëñ Fàllu noo ngi koy siyaar di siyaar bu baax a baax sëñ Cheikh Diwaan Silla noo ngi koy siyaar bu baax euh, ak njabootug sëñ ma paate gépp di sëñ Moustapha Lo di siyaar sëñ Abdou Wahab moom Serigne Abdoul Khadir noo ngi koy siyaar bu bisimilah. bisimilah euh, daam mu mel ni mu mel ni mu mel ni da nga may téyel téléphone bi rek xam naa ni àgg nañ presque fi ni di yëkkatee jotaay bi euh, te tam euh, élément boobu ma lay wax bu fekkee mën naa mën nga nga nga nga tegal ko. allo asalaamaaleykum. maaleykum salaam. sëñ Modou Bousso sëñ Modou Ndiaye ñoo ngi koy siyaar bu baax a baax. bisimilah. moom sëñ. maam amin bismillah bismillah Ya kaza seigne dam element bobu may may ñaan bobu tay rek nga nga xol bu fekke mën nga ko kiyel mouride bu dé jappandina na lay siyaar bu baax a baax euh, waaye itam sëñ Moodu Njaay ñoo koy siyaar nek ak seigne Jiili mom cheikh modou bu sa jeng ak kër ga gep nong leen di siar bu baax a baax njabootu Seex Moustapha Fallu gep nong leen di siar bu baax Sunu baax suñu wa soxna Awa Gajaga nga xamni ni bu ma fekkee kër Seex Basum Sëñ Abdou Khadre danaan ma kay ma ñëw mun nga xamni yow rek lay setan mom nang koy nuyu diko ko bax bax di siyaar njabotam gep ci barke Cheikhul Khadim ndaysan ak wa Mboro nga xamni seigne sëñ fala dan la daan ne waa kel kel nong len di siyaar di ñaanal bay Abdou Samad Guèye ak magam ya sunu borom tas len ci barke seigne Touba ci fañ nek nga xamantene moma jëk a jëkk kel kérok dajé nañ fa ak Cheikh Moustapha Falilou gep nga xam ni wàccuwaayu sëñ fàllu woon foofu seen way jur wa taqoo woon ak sëriñ fàllu rawatina ak yoonu murit ñoom ñëpp ñu ngi leen di siyaar bu baax a baax noonu la ñuy siyaaree bu wérwee seen seexu naa siyaar bu baax a baax sëñ jiili ñang noo ngi siyaar bu baax a baax mbooleem euh, waa restaurant Saam Jaxate noo ngi leen di siyaar xam nga foofu Touba ci restaurant kër sëñ Ablaye Jaxate gi foofu laay xéewloo ci booy romb kër booy dem kër mbàkk yu fay Seex euh, Jaw ne fa ndax moom xam nga li gën a neex mooy ndawalu rëbb yooyu nga daan dégg

boolewul woon dara ki wax baatin ci moom la yemoon am njàng ci moom la yemoon sëñ Tuubaa ko dalal baa Seex Mustafaa Faliilu waaye nag sëñ Muudu Mustafaa moo sotti ko ci moom waaye ba mu sotti koo ci moom sëñ Fàllu daal di koy rek euh, rempli nag mu fees dell mat li mu doon dara jugu fi nag bàyyi na fi koo xamante ne ci mbaax muy sëñ jiidi mii di xalifaam déggoo ko ci lenn am di di am dignité am personnalité xam boppam boo demee ba ca daara jéemu tabax ca ca ca ca ca Madina Salaam ca boori Ndindi di nga xam ni kii euh, wanewut wanewut àddina wanewul boppam ci àddina te maamam sëñ Tuubaa rek la sëñ Musaa Ka ne woon àddunaa ngi toll ni fi yow ni dënji mbaa teeñ borom ay dënd xàmmewu leen ak boroomi teeñ li lee tax mu daa tuubloo dammel màqaaki teeñ ku mel ni ku am leeg moom na la wóor ne yaa ko tooñ déglul jikkoy sëñ Tuubaa mu ne du tooñ ndaw du merloo mag mënut gan te lay dëkkam amul xaar ma yàlla nit du xas nit ci waa këram deful xejj buy jël saa zaayiram sànge baatinam xañut nit mbiram biiram xañut nit mbiram kawam te loo ko laaj lu mu rëy rëy mu fob loola jox la ko waaw kon bërigo bu fees du yëngu ne boo jëloon benn bërigo di ko bërëm ci tëli bi bu amul dara ka tollu fële sax dina xam ne yaa moo tax ku amul dara mooy nekk ci télé yi sama kalaas gi di wax rek waaye ñi fees dëgg dañ na teg yor lépp gérer lépp sëriñ jiiri noo ngi ñaan suñu borom dolli ko xéewal ak rakkam yépp nag ci barke Cheikhul Khadim pers ñu am man ñu ma naw lan ñu am personnalité lañ ñoo ngi siyaaraat tamit rakkam jii fi jógee bërki démb di ñaanaat ñëpp defaat ay lixlaas yéene ko ko muy sëñ Xaasim Mbàkke moom Cheikh Moustapha Falilu noo ngi ñaan suñu borom gisale kook maamam bu baax a baax a baax ci barke Cheikhul Khadim tey ñaan nag loolu gij fi lool ci barke Cheikhul Khadim rawatina jullit yëpp rawatina murit yëpp seen émission la Café Touba seen mbokku taalibe Maam Mor Mbaye doon leen ko jéem a téyel cameraman sëñ Mansour Guèye mi nga xam ni ci télé bi la ne euh, di jàmbaar jàmbaari Serigne Touba waaye tamit daam euh, nekk ci réalisation bi noo ngi ñaan sëñ Touba defal leen xéewal ci barke sëñ Touba ak ñi doon seetaan ñi bëggoon a dugg te dugg nu ñëpp ndax bari na ñoo xam dañ ne ma ubbil téléphone bi. ma wax lima cheikh seex Moustapha Falilou defal fi ci Patte ñi naan lam ma defal ci Italie te jotu ñoo dugg ñooñu ñëpp ñoo ngi ñaan seigne touba defal leen xéewal tan ñu magal gi euh wal tusbina wa hawina wa kullana wa hablana naa usnal xitaami rabbana wa salli ala nabi wa sallimi wa ajdi bi aadati kulli muslimi barke cheikhna ahmadou bamba xaadim rasul yasir lil asra wa kullu man yassir tontan isra barke Sëñ Tuubaa وليهب جناح